mbokk yi amaat nañu mbégte jàkkaarloo waat ak yéen comme d'habitude sur la 7 TV pour que la télé soit un plaisir li ñuy def mooy indil leen yi nga xam ne rek da ngeen koy ko waaye li nga xam ne day am njëriñ lool ci yéen lu ci mel ni tous les mardis 21h bu jotee 7 voix du cœur sur la 7 TV rek ñu ànd ceeg yéen ànd ceeg nit ñi nga xam ne rek ñoom la ñuy fekki à chaque fois euh, ñuy dund euh, li nga xam ne rek mooy lu metti wéet seenu néeg lool lool lool te fa ñu ngi caaroy gaar tey nag dama am mbégte lool lool lool ñëw fekk ci association des handicapés de caaroy gaar ah. muy loo xam ne rek association bii la waaye tamit ñoom am nañu fédération bu mag boo xam ne moo ëmb association yëpp yi nga xam ne rek ñoo nekk fii ci euh, Sénégal euh, tey nag ma dalal ci waa Thiaroye gar am ci mbégte lool lool lool ndax nag euh, doon nañu ñoo xam ne ay handicapé la ñu waaye nag fas nañu jom ku ci nekk takk sa sër ñii takk seeni tubay ñu daal di nag rek ne du ñu des ginnaaw te nag du ñu nekk di yelwaan kese maanaam dañuy liggéey lépp lu koo xam ne rek valide liggéey dañ koy daal di liggéey kon nag ñu ànd nag waaye nag ñu bëri lool lool ay jafe-jafe ak ay ñaxtu yoo xam ne war nañ leen ci jàppale ba tax na rek euh, dañ cee dalal tey ki nga xam ne mooy euh, Fatou Fall madame Faye euh, moom lañ ci àndal muy membre ci association bi waaye nag muy wax ci kàddu li nga xam ne rek mooy jigéen ñi Saliou Faye nekk seen président yebal ko kon nag tey dañ koy bàyyi mu daal di nuyoo nuyu ñu ñuy seetaan waaye nuyu ñu fi fekk yëpp di leen jox cër suñu yaay yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox cër bu baax a baax di la bàyyi rek nga àddu Fatou waa Sonia maa ngi leen di nuyu yéen ñu fi toog yëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant maa ngi tudd Fat Fall bokk association des handicapés de Thiaroye Gare membre laa ci. mais mhm. jigéen ñi man lañ jox seen kàddu pour ma waxal leen seen naqar seen métit ak seen tiis ak seen jafe-jafe. Mhm. Euh, tey jii ñu dal ñu ñëw fii ci euh, Thiaroye euh, Fatou man li may njëkk wax sax mooy ñun bi ñu ñëwee amoo leen foo leen ñu dalal. dëgg la. amoo leen foole leen fi ne jamono ji may wax ak yow ñu ngi kër chef de quartier. waaw moom it mu doon koo xam ne ku leen yaatal la. koo xam mm-hmm. ne lépp loo leen di def. Mm-hmm. Euh, da leen di abal amoo leen sax chaise. ma bàyyi la nga àddu ci li nga xam ne rek euh, noon ngeen seen association bi depuis kañ la ak euh, naka ngeen di maanaam évoluer. waa association bi nag yàgg na yàgg na torop. Mm-hmm. parce que man sama borom kër avant mu may takk daf ma fekkoon ci association bi nekk Géejawaay. mais bi ma takkee ma ñëw bokk ci bi mooy bu caaroy gaar bi ma ñëw fekk mu nekk président bi mhm. di ko doxal def ci lu ne nag mhm. sonn ci Saliou Faye waaw Saliou fay mhm. def na ci lu ne lu ne def na ko ci maanaam sonn na ci jug na ci heure bu ne waaw ba ñu egsi fii mais amuñu local fu ñu daje def réunion dem nañ ba benn certain temps amatuñ ko mu gi ñëpp tasaaroo mais bu ñu waree daje wala ñu am fu ñu waree gisee moom mooy jël ci moyen propre moyen am ñu woote ne leen jour tel am nañ lii wala bu ñu waree daje fédération bu ñu amee manifestation wala ay 3 décembre rek yooyu ñoom moom mooy woote mooy jël ci propre moyen moom woote mais association bi moom liñ ci def man gisaguma ko def. Mm-hmm. waaw boobu ba tey mi daw nag. Euh, lan ak lan mooy seen problème balaa ñu ciy ñëw en waaw suñu problème nag euh, Sonia bari na bari na parce que ñun jigéen ñi surtout ñun jigéen am handicapé du ñu nangu kenn yóbbaale ñu te wéeruwuñu ci kenn it te du ñu tàllal loxo waaw mais def nañ ay formation def nañ formation leadership def nañ formation euh, céréale local boobu kii mooñu ko mayoon céréale locale boobu 3FPT. Hmm. moo ko mayoon suñu association ñu def ko leadership bi handicap temps yooyu ñu ngi ko en collaboration ak ñoom. ko hmm. ñooñu ko mayoon euh, ak beneen formation def nañ formation. entrepreneuriat waaw def nañ entrepreneuriat moom lañ mujjee def. Hmm. waaw mais saa ñu defee formation du am suivi. maanaam dañ leen seeni attestation rek ngeen dem waaw parce que mhm. dañuy proposer nañu di ngeen am financement wala dinañ leen utal financement par la suite du am suivi mhm. dañuy ñëw toog te xam nga liggéey moom dara boo ko jàngee mu nekk sa bopp nga ñëw rek teg da ngay fàtte après mhm. waaw <laughs> loolu bokk na ci problème yi am na yeneen ak yeneen nag yeneen dañuy dem seetaani ay témoignage ndax nag euh, ci biir euh, am na ay visuel am na ci ñoo xam ne moteur la ah am na ci ñoo xam ne am nañu ay feebar yoo xam ne ñu ngi koy wéyaalal mm. bëri na ay façon handicap daal yu fi nekk ba tax na nag euh, ñu doon ñu am jom ñu jàmbaar ñoo xam ne fu ñu war a dem rek dañuy jéemal seen bopp ñu dem seetaani ay témoignage nuñ ko dundee daal dellusiwaat léegi ci waxtaan bi sur la 7TV ci seen émission 7 voix du cœur nee na bi ma juddoo ba am ñeenti at ba fer parce que moom dafa yéex am doom bu jigéen nee na ñi mu nekkaloon ñu ne ko ndey ja demal ñàkk sa doom bi mu leen du ma ko ñàkk ndax moom dong la ci doom bu jigéen te dama ko yërëm pikiir bi yéenewu ma ko ko ndax bëgguma lenn lu ko metti daal moom mu dal ko ñu wax wax ba sonn sama papa ne ko yóbbu mu ne du ko def ndax kii dong la am na ma rafetoon torop koñ mu génn jàpp sama loxo ñu doom dafa mu ne leen waa man du ko pikiir daal daal lu koy metti daal ñu tëral ma noonu ba bët set jot rek mu yeewu sama papa ne kay xool joor li muy def mu ne ko lu def mu ne ko yëkkatil mu yëkkati tànk yi ñaar yëpp bañ bu yëkkatee rek ma daanu mu ne lii ah kon ne dafa bari caaxaan ne waaye nañ ko yóbbu ñu ne xëy affaire yi cat la ak affaire yooyu na fu ne dem na fa sama même chose ñu faj faj faj ba sonn ba benn jour ñu am kenn ku mu gis mu wax ko ko mu ne ko lii polio la léegi da koy yóbbu faan bu ko defee ñoom dinañ ko maase pour mu mën a taxawal benn jour bi nee na guddi ay 4 heures mu am wër wër ba sonn amul oto mu dox ba nee na jour boobu sa benn gardien la taseel ci ci ci bi ci benn ci benn canal bi noon nee na sama yaay nee dafa dox ba nar a dugg ci biir canal bi ànd ak man surux ndax nee na boobu lëndëm na te gis te nee na bëgg na man mu maase ma rek ma dox ndax sama moroom yi ni ñuy doxee noonu daf ma yërëm nee na mu nar a dugg ci biir maase ci biir canal bi rek ndaw fa kii bi góor ki ne ko mère yaa ngi xale bi nga boot nag foo jëm nii mu ne ko fii laa jëm centre d'appareillage mu ne ko fii nga jëm nii de boo surxee yaa xale bi maar day taali nee na mu ne ko tegtal ma kon mu daal di koy waat daal di koy tegtal ba presque boobu nee na guddi na maanaam amul guddi gu mu jugul daal ba ma di ma yóbbu pour maase ma nag maa ngi koy gërëm di ko sant daal te loolu noonu su ma koy nettal damay am lu ma metti parce que damay bëgg di ko defal parce que boo may nettali loolu rek ba léegi sama doom damay teel sama doom yi dafa ma bëgg bëggul lu ma metti kër gi dañ naa ko kii li nga ko may nii dafa ëpp mu ne leen kii dama ko bëgg ba tey ji dama ko bëgg parce que moom handicapam dafa metti ba naga ni ñi may sëy sax daal man bu ma deewee kii nii naa ko jox borom kër boo xam ne dama ko teel ba bu ma tàllee ma tëddee rek ma tàllee ndax joor dama ko yërëm ndax handicapam bi loolu noonu ñun handicapé yëpp ñun ñëpp suñu way jur yi dafa ñu koo may te loolu noonu maa ngi ñaan yàlla suñu borom mi ngi noonu bis bu nekk nag maa ngi bëgg handicapé yi ñu dem ca kanam bis bu nekk maa ngi loolu ñaan yàlla suñu borom ne yàlla na suñu borom defal ñu loolu suñu association bi jëm ca kanam pour handicapé yi xale yu ndaw yi ne suñu gannaaw xale yooyu tam ñun comme ñun mag lañ xale yooyu ñoom tamit yàlla suñu borom ñu jàppale leen am ko ñu ku ñu jàppale ba xale yooyu ñu mën a jug taxaw ndax am na ñoo xam te ne mënuñoo jóge seen kër yi mënuñoo déplacé wu comme ñun lii ñu mën gàddu beeke génn am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir néeg yi toog te ci association bi lañ bokk des fois man sama yaay def naa ma carrément da nga war a liggéey man loolu la ma daan wax da nga war a fóot da war a togg da war a liggéey waroo toog naa nangam parce que liggéey ci loxo la ak xel soo tegee sa bank nga def utal ma siwo yesaay fi ma sëy ji woon nii leket la ma wutal ne ma del gàddu sa leket di yenu ko ke munoo gàddu peñe addu sa doom del yël leket bi ndugg nga teg sa bopp te noonu laa daan demee marché dama daan teg sama leket ndugg ba mu fees ma teg sama te jom yëpp moom moo ko def ci man soo waxee ma ne da nga war a liggéey tey ji maa ngi ne am naa sama ñaari doom ku góor ak ku jigéen kenn ki am na 9 ans kenn ki am na 4 ans te loolu noon jom bopp bu ko deful woon ci man damay toog du ma jóg parce que def na ko ci man tey magum jëmmala mais mi ngi nii fi ne fu nekk mën naa faa teg sama tànk ndax jom boobu courage boobu sama yaay moo ko def ci sama sama bopp pour ñu am ku ñu dimbali rek dimbali xale yi ci ginnaaw wutal ñu siège appareil problème mu appareillage sam dafa métti 280 cent obligé 280 fu mënoo ko lijjanti maanaam buñ la ko bindalee nii sax da ngay tiit sax yow pour nga toogaat parce que man bi ma dammee yàggul sax dammoon naa amee naa fi fracture boo xamante ne même pas un an et quelque sama mag bu góor moo ma yëkkat dem yóbbu ma te loolu noon bu ma ko defalool mu ngi tudd Pape Diaw maa koy sant au passage moom ci moom laa topp mais bi ma dammee daf ma leewu rek dugal ma ci otoom daw ak man CTO bi mu yeggee ñu ne ko caution 700 quelque. mu jug taxaw 700000 ñu wax ba sonn ñu ne carte égalité bi ñu wax fu ne mu daw jëm fa keroog dafa daw a daw a daw a daw ba dama ko yërëm ñu wax wax wax ñu ne ko dañ koy opéré 700 et quelque boo ko joxee caution dañ koy tëral ci kaw laal bi noonu la demee jël caution dara dara amuñ ci carte égalité et au ñu ngi ñu ngi yaa ngi nii ñu denc fii santé bi demut te santé bi normalement war na mën a dem même bu transport demul tam santé bi am na ñoo xam ne ñu ngi feebar mais mun mënuñoo jug boo amul woon obligé ku mel noonu sa kër nooy def nga amee fracture 3 ñu war la defal opération war la tegal feer fi nii sama tànk bi ay feer moo ci ne nii te loolu noonu buñ ko fayil woon nu may def damay tëdd rek jëmale bu kenn xamul ku ñu jàppale daal defal ñu siège wutal ñu ay appareillage jàppale ñu wutal ñu liggéey tamit liggéey tamit ñu am suñu liggéey boo xamante ne bu ñu feebaree ñu mën a defal suñu bopp parce que liggéey tam lépp loo gis rek liggéey suñu moom am nañ fi ne nii suñu attestation yaa ngi nii ñu teg presque ay sept et quelque ngi nii sama sama kii bi ma teg nii ba tey jii nii dañuy jéem a génn di dem di wut liggéey nii rek di wut liggéey parce que mënoo tëdd parce que da nga yor njaboot mënoo tëdd te nit ñi dañ sa mag yi dañ lay bëgg a jàppale ñoom tam ñu la jàppale parce que ñu def lépp maanaam day metti jërëjëf euh, kon nag euh, mu li nga xam ne rek euh, gis ngeen ko loolu ci témoignage yi la mu doon rek femme bu brave boobu moom Dior muy lu am solo moom it mu doon koo xam ne rek dafa dund maanaam sëy divorcé Fatou bu ñu déggee ci témoignage bu ñu jëlee bosu Dior léegi nii gis nañu li mu dund am na ay bant ndax bëri na ay jafe-jafe en tant koo xam ne jigéen ñi yow lañu jox seen kàddu jigéen ñoo xam ne am nañ ci problème waa bëri na parce que mën naa ne sëyu Sénégal léegi problème kese la. Mhm. ci biir kër yi tar na torop tar na torop joor moom bosam moom sa exceptionnel mais jàmbaar la. parce que dafa nekk koo xam ne gis nga métit bu la ko nit doomu aadama di teg yow ñaanal yàlla may xolu muñ mhm. loolu mooy l'essentiel bi mhm. mais muñ muñ na fa lu metti ba yàlla ni mu defee mu weddi mais jigéen ñi li ñuy dund ci biir kër yi tar na torop mënuma la ko wax. parce que dafa métti fois lan moo koy waral seen handicap moo koy waral wala lan moo koy mu am exception am na ñoo xam ne seen handicap am na ñoo xam ne tamit peut-être nit mën nga mën nga gis nit du la neex. Hmm. bëggoo ko loolu day am. Hmm. mais gis nga ñun handicapé dañuy sëy comme ni ne leneen nit ñi di sëyee. fi may man mii di wax lu ma dara lépp maa koy defal sama bopp. Hmm. am naa 23 ans de mariage. ah macha allah te bi may ñëw dañ na ma woon du fi toog. Hmm? waaw. loolu lañ ma waxoon. ma am fi 23 ans. ba am fi njaboot waaw am naa fi ñetti bant. boobu ba tey maa ngi muñ. te gis boo muñul lu metti lu neex du la fa fekk. du la fa fekk waaw mais bëgg naa daal ñi handicapé yi sëy ñu jéem na a comprendre compréhension bi da ciy baax torop. làmmiñ ak bëñ nag ñoo dëkk dañuy daje àndaat mais compréhension bi surtout. waaw parce que waaw ku ñëw ci kër sëy fa am fa ay doom kenn mënatul xas na waaw kon nañ jàppante rek te yàlla tax ndax njaboot gi njaboot gi waaw làmmeñ ak bëñ nag ñoo dëkk du mën a du mën a ñàkk daal ñuy fekki tamit nañ xam ne ñun dañoo bàyyi suñu kër mm-hmm. ñëw seen kër. ñëw seen waaw il faut compréhension daw foofu. di am man loolu laa leen di lancé waaw. Mhm. Mhm. Euh, tey jii euh, gis naa li nga xam ne rek euh, mooy yeen ñenn ñi nga xam ne dinañu am formation ba pare du ñu am liggéey. Mhm. formation ñi leen koy defal ñoo leen war a defal suivi bi wala intégration bi si boppam moo jafe. waa intégration bi man moom laa jàpp ne moo jafe. parce que gis nga kila la ki la may formation. dalay fayal formatrice bi. subventionné la maanaam boo yendoo añ bi ak lekk beeg naan bi mooy añ beeg yooyu ba pare mu jox la paas ndimbal la paas ne la yokkal paas waaw xam nga kooku moom l'essentiel def na ko léegi ñun ñun ñooy ñaan lancer appel pour am ñu ñu financer bu ko defee ñu mën a pratique formation yi ñu da jot a def gis nga formation yooyu buñ ko pratiquer woon yow Sonia mm-hmm. mun naa ne problème yi dootul bëri mm-hmm. waaw parce que vraiment formation yi man gis naa ci sama bopp keneen keneen gis na ci boppam. waaw mais même bu dul formation yi naka ngeen di dundee ci entreprise yi boo demee déposer ak parce que yenn saa nga def formation boo xam ne mën nga dem ci tel ou tel entreprise daal di dem déposer. <coughs> Mhm. Euh, naka ngeen di dundee loolu. du am suivi. da ngay daw ba sonn nga toogaat. Mhm. fu ne déposé naa. appareil lan. bi may takk sama tànk man yoru du ma yor beeke de. Ah. appareil laay takk su ma doxee ab takkee appareil damay taxaw normal. ah da ngay taxaw normal boo ci takkee appareil waaw mhm. mais bi dafa yàqu de octobre. il y a de cela trois mooy pour bu la amputé appareil bi ngay takk. waaw même am na appareil boo xam ne même pa amputé. da nga koy takk koy mhm. takk man boobu laay takk mais déposé na action sociale suñu maire yi sax déposé naa mais amul suivi. Mhm. fu ne déposé naa. te seen appareil day cher. waaw day cher parce que Sénat woo tamit ñoom côté boobu. jàppale wuñ ci handicapé yi daal. Mm-hmm. parce que yow boo nekkee maire de famille wala nga nekk père de famille ak jamono bu metti bi nga ñëw consultation nga bëgg a fay dix mille francs. consultation waaw te booy bindal kese. pour ñu xoolal la. Mm-hmm. consulter la bindal la rek sa devis. Mm-hmm. kese loolu dafa metti te da ngay jël taxi aller retour. loolu dafa metti day metti waaw. léegi fi mu ne après euh, jëndum appareil bi ñu soog laa wax ñaata la. waa ay deux ay trois cent. trois cent et quelques yokk nañ ko sax mm. parce que bu njëkk ba ay deux cent et quelques yooyu deux cent soixante dix mille la parce que euh, appareil bi soixante dix mille la woon mais ñaari dàll yi bu fekkee da ngay jël ñaari dàll. Mm-hmm. dàll yi cuir la ñaari dàll yi deux cent mille lañ ko doon facturé. Mm. ci époque boobu. Mm. mais léegi ñu ne yokku na. ñu ne yokku na kon loolu yëpp nekk ay jafe-jafe yoo xam ne. amu leen benn carte wala benn loo xam ne mooy tax euh, mu wàññeeku. déedéet dañuy dem seetaaniwaat ay témoignages léegi léegi laataa ñoo wéyal ak association des handicapés de Thiaroye Gare ñoom la ñu dalal tey jii ñu dem xool yi leen soit léegi ci waxtaan bi sur la 7TV. waa association bi de nuñ ko dundee mooy tey ji ñun ku ñu jàppale ñu jël mm. parce que ñun dañuy nekk albinos. suñu yaram lu bari àttanu ko crème solaire war nañ koo am ay edd tamit war nañ koo am ndax tey jii suñu po moo nanguwul lu bari dafa metti si ñun daal ku ñu jàppale tamit ñu jël booleek tamit tey jii man mii dama am drépanose loolu yëpp tamit dafay lancé dafay metti booleek tamit albinos tamit boo doxee tey jii si naaj bi dem nga am ay cancer ak yooyu waa drépanose bi tamit tey jii laaj na lu bëri parce que feebaru deret la feebaru deret dafa metti feebaru yax tamit dafa metti tey jii boo amee ku la aide tamit pour ngay am wut say garab di naan tamit loolu da ci joué albinos bi ay crème solaire parfois nii nga gis tamit ku la ko may parfois nii doo ko am cher na kay parfois ay Europe lañu la koy jëlale ñu touché la ko même tamit sama problème mu tamit tey jii sama papa sama yaay ak sama papa ñun ñett lañ fan yi paase nii rek sama benn rak si la gaañu parce que tamit ñàkk am ku ñu dimbale mu metti lool sama yaay faj na ba sonn mu metti lool bu ma koy wax sa sama xol day jeex ma am lu ma metti parce que ku ñu jàppale ñu jël sama yaay toll ci ay situation fan yi boobu ba léegi feebaru xale bi ba ko yàlla ba mu ko moomee ba léegi sama yaay du albinos sama papa tamit du albinos ñun ñett lañ fan yi la amaat benn satu albinos sax sama rakk dafa feebaroon parce que dafa amoon tamit problème tamit dépression tamit parce que ci école bi la ko amee woon da daan jàng jàng na ba am certificat ba di dem entrée en sixième muy dem rek mooy feebar yooyu di xew di dalee léegi ñu faj ko nag fu ne sama yaay jeexal amatul doole fu ne yóbbu nañ ñu fu ne dem na fa dem dem ba jeexal xam nga jamono jii rek boo demee ba amatoo doole rek tey jii am na loo xam ne tamit yàlla da koy jël ndax moo ko moom ndax boo fajee ba sonn amoo ku la jàppale loolu tamit dafa metti maa am kër mais maa ngi géejawaay fee di sëy fan yi sax na amoon bebe hmm? non sama borom kër nit ku ñuul la fan yi sax damaa amoon bebe sama doom tamit nit ku ñuul la am naa ñaari bant yu ñuul tuddalaguñ ma sax dama amoon bébé nii na ma trop ndax tey jii man bu ma amoon doole tey jii tey situation yu nekk ñu ñu nekk nii duñ ci nekk parce que bu bu ma amoon doole dinaa leen wut kër bu ma leen dugal wut fu ma leen taxawoo ba duñu am yenn jafe-jafe. moo tax bëgguma sax di wax ñu may introduire may wax suñu situation waa kër tey am lu may joué moom moom bëgg na mais tamit dooleem jotul ginnaaw mm-hmm. day journalier rek boulangerie la. ku ñu mën a jàppale mooy tey jii Macky tamit bu ñu mën a joué jàppale ñu wala tey jii tamit bu ma giseen tamit tey waali bu mu jàppale ma tamit dina ma joué ndax man mii sax artiste damay dund aar jàllo sa maa ko joué waalo waalo bi soloon grand mbubb bi cuub bi kan tamit ku baax la daf ma daan jàppale waaye xam nga tamit tey jii tamit bu ma amoon tamit ku gën a maa gën a téye taxawuma sama waajur yi surtout maa sama yaay waaw même tey jii tamit ku ma mën a jàppale rek pour ma def tournage ak yooyu man loolu dina ma neex waali tamit au moins waali noonu laa ko bëggee gis ndax maa ngi def ay lancé appel pour ma mën koo gis mais mënumaa fexe ba gis ko kan sax maa ngi ko doon wax pour mu jéem maa dimbale pour ma gis ko waaye moom nee na ma dinaa ci taxaw waaye boobu ba léegi tamit xaw na yéex ndax nii nii bu ma ko gisoon dina ma arrangé parce que lu ma liggéey pour daan sama doole dimbale samay waajur rek moom bëgg bugguma ñaanaatu bugguma taxawaalu ci kenn doy na waar euh, gis nañu ni mu demee. Mhm. association bi euh, am na li nga xam ne rek euh, mooy albu albinos yi. Mhm. comme ki ñu jël léegi nii. muy Fatou. Fanta mhm. Fanta mu nekk loo xam ne lu metti la Fanta Fofana. moom it ñoom it albinos yi gis naa ne ñi ngi seen biir. waaw albinos yi ñu ngi suñu biir. mais kaaw Fanta moom dafa nekk loo xam ne lu exceptionnel la. te lu daw yaram la lu triste vraiment. parce que yaayam danaan ko seesi ma mais kaaw Fanta moom doy na waar daal man damay lancé appel ku ko mën a dimbali rek mhm. te yàlla tax ak artistes yi mi woo ngeen ñëw jàppale ko parce que soxla na ko torop mhm. te day yëngu ci loolu ci lay liggéey da ciy yëngu moom mhm. te jàmbaar la day fecc waaw day fecc tamit waaw jàmbaar la torop te mooy taaw te ñoom ñett la ñu woon sërëm bi yaa gaañu na bu yàggul moom dafa feebaroon xam nga manque de moyen rek boo Sénégal moom boo feebaree te amoo loo fajoo moom mooy loolu yàlla def li gën yaayam dafa tëdd feebar mënul dara waaw ko mën a dimbali rek te yàlla rek tax nga jàppale ko jàppale ko waaw euh, métti na ba tax na rek euh, tey jii euh, ci seen biir bëri na ay albinos waaw bëri na ay albinos. Mhm. ñoom euh, wax na ci tamit ci li nga xam ne rek mooy crème solaire yi nga xam ne dañ koy faral di soxla. waaw crème solaire boobu nag moom moo leen moom soxla nañ ko torop. parce que mhm. moo leen di permettre ñuy génn di doxi seen soxla. Mhm. parce que bu naaj amee du ñu mën a génn. bu ñu diwowul crème solaire bi du ñu mën a génn te du ñu gis bu baax. waa <laughs> Euh, yenn saa yi nga dégg ñuy jooy ne may nañ leen crème solaire. Mm-hmm. conteneur baa ngi port. pour mm-hmm. génnee ko day doon problème boo déggee loolu faatu en tant que koo xam ne da nga jiite ay femmes handicapées lan la lay def. may loo xam ne tey jii euh, daanaka jënduñu ko may nañ leen ko may yegg si na mi ngi port mënul génn. daf may metti torop. Mm-hmm. parce que nit ki am besoin ci benn affaire mu am ku ko ko am possibilité ñu indi ko may ko ko kon war nañ leen a mën a yombalal mu génn ñu jot rek tax. waaw mm-hmm. dafa may metti torop mais mënu ma ci dara. Mm-hmm. Euh, dafay metti mais mënu si dara muy loo xam ne rek euh, lu doy waar la euh, association des handicapés dañuy wéyal ba tey ci témoignage yi bëri na ku nekk ak ni ngay dundee sa handicap waaye tamit dinañu seeti yaay yi nga xam ne tamit ñoom amuñu benn handicap mais nag liñ naan doom sidit la. Mm-hmm. te nag day tax nag lu mu dugg nga dugg ci. ñi nga xam ne dañoo am seen doom ñu nekk ay handicapé mais bàyyi wuñ leen benn yoon nekk ay battante topp leen jusqu'au bu ba tax na looloo leen dugal ci association ñu dem xool ci benn daal di soit léegi mu nekk Germaine euh, dellu si léegi ci waxtaan bi sur la 7TV ci seen émission 7 voix du cœur. sama doom mooy handicap moo tax ñu boole ma si association comme gannaaw xale la mënul mënagul dara donc maman yi def euh, démarche bi yëpp bientôt 13 ans. 13 ans nu mu tudd. Anne Marie Innocence. maa ni waaw boobu handicap ba mu amee huit mois laa def remarque bi parce que doon xëy di jooy à chaque fois day jooy mais jooy day métti am benn femme mu ñëw yow est ce yow def nga remarque si sa doom bi mu ne ko waa maa ngi gis ni moom laa loos bi mënu koo téye moom da nga ko yóbbu faan ci laa xëy un jour yóbbu ko faan mais ba ma demee ñoom beneen cas lañ doon traité dañ ma ne heure ni ombilical la am or que du woon loolu léegi au fur et à bi dama gis ne affaire bi mi ngi gën a yokku parce que moom mu nekkee xale 8 mois ba léegi maa ngi koy traité donc après suñu ma ne naa ko jël yóbbu ko CENAO centre appareillage léegi ba ma demee ñu xool ko si nañ xam ne effectivement dafa am problème mu nerf retard moteur la am waaw. waaw métti na étant jeune xam nga mu nekk sa taaw bon bëgg mooy sax di ci wax mais comme ni ñu wax rek ku waxul sa jàngoro kenn du la ko fajal parce que son père m'a abandonné. parce que di si wax sax boobu wóoragu ko sax ni affaire bi am na wala amul wala ma abandonné boobu juste que boobu ne nekkoon naa en rek ba ma ñëwati koo wax boobu la fii ay responsabilité mi waaw yàlla dogal nag xale bi juddu ñëw ak benn melokaan ma koy sant yàlla parce que xëy loolu la yàlla dogal waaw dafa ne nit ku nekk boo sañoon sa doom bu ñëwee na am benn melokaan muy indi daal mais lu ñëw daal da ngay sant yàlla te xam ne loolu la yàlla dogal waaw mën na ko nag parce que ba mu amee huit ans ba léegi huit mois ba léegi maa ngi ci mais peut-être manque dem moyen moo tax ma arrêté traitement bi parce que ba métti ku xam Sénégal woo xam ni foofu mooy loolu parce que danañ bind ay massage yoo xam ne quatre-vingt mille séances chaque deux jours séance bi quatre-vingt mille nga war dem chaque deux jours pour def ko nga war a xool xale bi il faut soit nga jël taxi wala nga boot ko pour mën a dem chaque deux jours foo jëntee huit mille francs par séance soit nga jël taxi aller retour nan lañ lay wax chaque deux jours huit mille francs mooy séance bi nga war a jël taxi aller retour mën naa ne dix mille yow daa calculer vingt par deux jours chaque deux jours su fekkee yoo liggéeyoo merci boo amoo ko la jàppale wala yow tey liggéeyoo foo koy jëlee donc après ma ñëw arrêté traitement bi. ba benn moment aussi ma arrêté ma commencé waat bon la même chose da ngay dem kenn na la dinaa ko jël en charge jël dossier yëpp nga yóbbu mais da ngay dem ba si biir ay chantage la ñu siy defaat parce que dund naa ko comme on dit la diable ne fait rien pour rien attend quelque chose toujours au mais boo noyyi bopp rek waaw dangay def lii voilà nga dem ñu ne ma lii ma mën koo faj mais pour lan yow boo jógee ne da ngay def ngir yàlla tax defal. mais bul ne comme defal lii rek mooy tax ma defal lii non non parce que da ngay dem hôpital war ko mën a faj mais yàlla xam na doo am sa xaalis boo ko fajee am na yenn ordonnance si ko bindal li sax ak kii nii rajo yu war a mais yàlla xam ne ba tey mën maa fexe ba def ko parce que dafa métti donc boo amul ko la jàppale day métti te man boo fekkee tàmmoo di wax say problème tamit day dis yow nga dem ne nit lii ak lii ak lii vu que à chaque fois boo waxee chantage yi teg da ngay dem ba à la fin découragé. da nga bëgg a def mais da ngay dem ba doo amati courage parce que da ngay ne yow voilà am na moyen bi am na moyen bi mais dañ lay chanteloo donc yow su fekkee yow ooyof nga sa rek comme ni ñu ko mën a waxee donc yow da ngay def nakk sudul noonu parce que da ngay ne ah bëgg naa def rek mais comme ama pexe naa def rek wala or que loolu moom daal du wax du doxul parce dina wax mais wax bi leerul mais yow tant que yow mi di yaayam yàgg nga nekk moom li nga xam li mu bëgg wax lan la. parce que geste muy def di nga xam kii carrément lu mu wax lan la. waaw métti na nag parce que da ngay xool à chaque fois bu nga day forcé pour wax yi di nga dékk sa nopp sa nank loo wax loo wax bu mën a xam sa li wax lan la day métti parce que di nga bëgg xam li wax lan la mais day métti daal mais heureusement moom tamit elle se sent parce que kër gi comme xale yaa ngi fa day foo ñoom et tout ça donc tu vois mu ngi déplacé tamit noonu nicement da ak waaw am na mais yàqu na sax fu mu toll nii ñaar yëpp yàqu na. waaw jafe-jafe euh, te premier moo déjà prise en charge laa njëkk a bëgg parce que man ku ma ko jëlee en charge ma jël wax dëgg yàlla fu mu toll nii man liggéeyuma damay fóot nag parce que bëgg ma ñaan kenn maa ngi fóot te fóot dafa métti mënoon naa ne jànga naa mën naa dem na fi ma neex waaw des fois di nga jàng sa diplôme yaa ngi fi mais boo amul opportunité pour liggéey donc da xool loo mën a def rek pour jàppale sa bopp ma am tamit ay parents yoo xam ne comprendre nañ ma. niveau BFM bi jotumaa def en 2003 ci laa bàyyi waaw mais jotuma def kii BFM daal waaw léegi heureusement ma am parents yoo xam ne comprendre nañ ma su ma paane sax ñoom ñoo may dépendre waaw ñu ñoo may dépanner franchement xataluñu ma buntu xataluñu ma daal en tout cas maltraité ñu ma sa benn côté daal. parce que carte égalité nga dem hôpital ñun la xamuñu ko te pourtant boo ko Sénat ak ministère de la santé ñu taxaloo comment ça fait que yow carte ñu ne ministère de la santé santé la bokk. léegi ñoom ñoo nga yóbbu ko si wàllum santé ñoo ñoo xamuñu kart bi donc xam naa dañuy def lu leen neex rek waaw mais nañu jàppale daal surtout ci loolu surtout ci côté santé bi boobu daal lañu gën a soxla daal waaw parce que boo demee ba def ne carte égalté de change la pour euh, prise en charge yow nga dem hôpital ñu ne la carte bi ñoom xamuñu ko yow da lay xaw a jaaxal waaw ndax fay yi métti na kon nag eh, gis ngeen ko kooku mooy eh, Germaine maane eh, doomam di ni nga xam ne rek mooy Anne-Marie Innocence Mané ni ñu ko déggee metti na muy jigéen am jom loolu macha allah Euh, naka ngay dundee Fatou ak moom ndax gis naa ne ku ku dynamique la. ku am pas-pas la ci mm. association bi. Mm. Mm. naka nga ciy dundeek moom des fois du ñàkk xolam tooy. ndax am na lu mu dund. wala mu xëy amul lu mu euh, yóbboo doomam hôpital. ndax ñàkkul bés boo xam ne dund nga ci ko moom boo xam ne mën nga ñu ko fàtte. waaw xanaa bu ñëwee rek ma dalal ko. Mm-hmm. déglu ko defal ko te xam ne lii loo gis ci àdduna day jeex ay jaar-jaar la rek mais problème mu transport rek xam nga ak. Euh, ay analyse ak yooyu yëpp mu ne ko waa léegi yow da ngay jàpp rek foo xam ne boo fa demee di nga am edd ba mu mm-hmm. ñëw ci sama borom kër sax mu ne woon dafay ñëw toog waxtaan ak moom ci loolu. ma ne ko waaw par la suite après mu nekkaat ci yeneen. Mm-hmm. mais Germaine daal dafa nekk koo xam ne moom ku jara dimbali la surtout doomam bi parce que euh, neer dafa nekk loo xam ne dafa metti surtout xale bu mënul dara mënul wax mënul dara. day am ay besoin des fois du ci kenn daal ay parents waaw ba treize ans dafa metti mm, dafa metti dafa yàgg waaw mm, jàmbaar dëgg ko mën waaw jàmbaar dëgg ko mën mm-hmm. bu ñu ko mënee jàppale daal ci doomam boobu muy def ay séance mm-hmm. ay massage ak leneen ak leneen ah dina baax man de loolu laa koy lancé après ñu jàppale ko euh, tey jii euh, ñàkkul euh, li nga xam ne jox nañ leen ko muy formation mm-hmm. ndax di ngeen di faral di jékki-jékki Euh, gis kenn koo xam ne dina yëkkati ay appareil may leen wala yenn ci don yi wala leen loo xam ne tey ji ci nguur gi lay jóge ñu jox leen ko loolu nag gëj naa koo gis yàgg na mhm. néew ma amul nag mais buy am ci fédération bi lay jaar fédération bi lay jaar waaw mhm. buy am ci fédération bi lay jaar parce que des fois ñu woo ci benn maam président bi ne ko fédération bi dafa ëmb association yi nekk ci gox-goxaan. ci réew mi yëpp waaw Sénégal yëpp. région yeeg yëpp wala. dafa am dakaar am mhm. Pikine. Mhm. ñun Pikine la ñu bokk. Mhm. waaw waaw mais yàgg na de gëj naa koo gis torop. waaw mais daan nañ ñu may ay béke ay fauteuil roulant. mais loolu yàgg na torop mhm, boo waxee fauteuil roulant euh, kii nekk sa ginnaaw. Mhm. ma gis ne déplacement metti na trop. Mhm. Euh, yaa ngi may xamal ne. Euh, lii mu toog nii bii baaxatul. dafa yàqu waaw maanaam da ciy débrouiller. ba tax na ni muy déplacé woo metti na trop lan ngay àddu ci lii. ñu dimbali ñu ñu dimbali ñu. mais plus particulièrement président de la république Macky Sall la waaw bu mënee daal mu jàppale xoole gestuwaat handicapé ay ak fauteuil roulant ak albinos yi ci seen crème de visage yeeg yooyu yëpp man président lay lancé appel boobu. Mhm. parce que moom rek moo ci mën dara. Mhm. waaw président ci boppam laay lancé appel boobu parce que soxla nañ ko trop dañuy bëgg a génn déplacé wu dem fenn sax mais duñ ko mën soñaar mhm. parce que boo amul appareil doo mën a dem. doxi sa soxla ngay nekk. war a yor say doom say besoin doom yooyu yëpp metti na daal metti na. trop metti na euh, mais tey jii bu boo xasee ba déplacé wu ba génn. yan jafe-jafe ngeen di faral di dund ci biti ndax nag tey ji li ci faatu nekkul ci soña mhm. li ci euh, awa nekkul ci ndumbe mhm. euh, yenn saa nga gis koo xam ne du comprendre mhm. handicapé yan genre jafe-jafe ngeen di dund bëri na ci oto yi surtout oto yi parce que des fois da ngay dugg bëgg a yéeg tata sax nga dem ba teg ta sa tànk sax mu départ wala hmm? ngay yéeg tata duñ la may nga jàll dañuy taxaw fi ñu taxaw wala wala nga waaw wala nga arrêté taxi mu ne la mënuma la yóbbu parce que sa chaise wala nga arrêté taxi doo leen juboo ci euh, prix ci prix waaw mhm. waaw loolu yëpp da yooyu yëpp dañ fi daf ñuy faral di daal mhm. dañ koy dund mhm. surtout bu ñëwee ci arrêt bi njëkkante am dañuy obligé dem te mu ñu njëkkante. munoo leen waaw ah. euh, muy lu metti waaye ba tey rek ñu ànd ceeg ngor ak jom ndax nag doon nañu ñoo xam ne bëgguñu ku leen yóbbaale te boo fekkewee seen waxtaan ci 10 minutes rek xam ne tàllalu ñu loxo te bëgguñu lenn lenn loo xam ne rek euh, lu leen di yóbbaale la ba tax na dañuy dem seetaani ba tey euh, bëri nañu ci seen biir am na ñi nga xam ne ay nen lañu ay nen du moins ndax am na ay góor am na ay jigéen ba tax na ñoom it dañ leen dem xool xool yeneen témoignage daal del soit ci waxtaan bi bi sur la set TV ci seen émission 7 voix du cœur. nag lii daf maa ah. la rek daf ndigg luy metti jékki-jékki wàcc si tànk mënatuma dox hôpital bu dee nag da wër naa ko hôpital bu ne daj nal naa ko lii diiree na dina boobu sa yaay mu ngi mu ngi dund sa yaay mu ngi gaañoon rek mën na ñeenti ñeenti at yàgg na kay mën na ñeenti at moom handicap dafa gàtt rek comme ñun nii waaye yorul ay pekke comme waaw dafa dem diggu diggu luy métti rek mu tane maa xëy mënatu ma dox mënatu ma def dara hôpital bu ne ma ma xa fu ne ñu yóbbu ma fa daal fu ne hôpital bu a wax dëgg dajal naa ko yóbbu ma ñu ne problème mu sidit la problème nerf sciatique sidit moo lemu na ne affaire opération dañ ko war a opéré dañ ko war a opéré diggante bu sama yaay feebar fi ma dem fa daa bàyyi sama ma ñëwee ba ma wax ko sama yaay ma ah man de dañ ne ma naa opération la war a def moom foo gisee siddit bu ñu opéré loolu wóorul bul opéré moo sañoon da doo opéré xaw ma ne sa bëgg-bëgg voilà di dégg wax ba mënu ma woon sax dama war ma woon amu sax fekk yi am benn xarit boobu en tout cas ku góor la waaw man war daam ni ndigli dafa métti dama war daam ba su may génn sax dugg ci oto bi dañoo jàppoo ñaara may génn benn xale bu góor bu dëkk si kër gi ak beneen sama benn tàmmuñ yaay ku baax ma ne hôpital ñooy ànd moom ma moom ma jël si suñu jàppoo dugal su damay sangu su ma def lépp dañu may jàppoo may loxo sama rakk day toog noonu la sa boobu sama yaay nga ñoogul mais sama rakk la ñu moom noonu nekk ñu kese yoo nekk and and kay waaw après dina wax ak yow léegi mu ni continué noonu wati mu ni continué noonu continué noonu sama yaay gaañu xam nga ba ma waxee loolu waaw bañ na ba maa ngi jox lañ ma bekk sama benn xarit ba ko jox ma ciy soox ni déedéet moom moom sama yaay mën a mu opéré mu ma opéré nee na si di kenn ko opéré woo risque la te ki ma waxoon dafay opéré lu leer la wax dafa ne tant chance mun naa opéré dafa am na tant chance mun na ma ñëw opéré yaay ni mu gaañoo ma nekk ak sama rakk ji ma naan jaay jën ma naan ma naan xëy poor ma yàlla dañuy dañuy yalwaan poor lañ nekk yàlla sama gaal sama rakk ji foofu leen fi sama place yaa leen nekk man yaraax laa doon xëy di neerwaan si gaal yi ma may jël su ma ñëwee di jaayaat sama buntu kër may may jaay di si ndawalu di si fas noonu la noonu la ñu nekkee woon man man extra man mënatuma dem déplacement bi dañuy def loolu man bi ma ñëw nii rek dañ maa indi oto su ma la su ma ñibbi yow ma jox paas ma ñibbi ma ñëw nii rek oto laa indi oto. koo xamante ne moom da nga judd fi nga war a juddoo te yàlla defal la sutura it ngay jàng ba dem ba ci digg jàng ba yàlla defal la nattu bi sa papa wëlbatiku sonn ci lool. jël alalam yëpp def ci boobu normalement maa ngi am 15 euh, ans waaw sama benn xarit daal moo doon fondool daal moom moo ci doon daal rek actuellement foofu daal foofu daal la jaare ko waaw ñu koy sant yàlla nag bu baax sama papa nag wax dëgg si yàlla maa ngi koy yànnal <clears throat> yërmande yàlla ak yàlla yal na yàlla dolli ko dolli ko mboolem julit sonn na joli lool def na ci alalam yëpp mu gi ñu xam ne lii moom ndogalu suñu boroom la ah ñu nangu ko rek at égalité bi moom wax dëgg moom mm, am na ñu dugg ñu ngi leen di fay ba léegi mais am na ñoo xamante ne ba léegi dañ leen dàgg dugg nañ feyeku nañ benn yoon ñu dàgg leen man mi ci laa bokk. man depuis 2016. mille 2016 benn benn yoon laa feyeku. Mhm. ñaata. 75000. 75000 waaw. Mhm. boobu léegi nag saa yu paiement amee waaw saa yu paiement amee su ma demee ñu ne ma yow viré guñ sa xaalis. Mhm. waaw sonn naa ci loolu dem naa ci madame Diallo dem naa fu ne daal dem naa fa waaye daal ba léegi amatul amagul benn kii daal benn solution daal wax dëgg sa yàlla. xanaa di wax ministre bi rek mu tuuti Marie Khemesse Ngom ah ak président de la République Sall nañ jàppale daal te yàlla tax nañ dimbale te yàlla tax parce que moo xam handicapé nu mu tuuti ku dul gis ku dul gis moo xam handicapé koo xamante ne dangaa yore ci nu mu tuuti fauteuil hmm? ñun ñëpp. kenn ku nekk xam nga li ngay dund parce que am nañu majeure partie boo xamante ne yow ab si sur nu tuuti euh, da dangay yore location sa doom dañuy jàng danga leen war a fayal hmm? su weer dee da nga war a fay ndox war a fay courant te loolu yëpp yaakaaroo ko ci kenn weer woo kenn lu dul sa borom kon nag ñooñu moom wax dëgg war na ñoo gëstu nag ngir jëm bi suñu borom waaw parce que chaque fin de mois itam parce que chaque trois mois vingt cinq mille wala ah faj na dara de wax dëgg si yàlla faj na dara mais nag suñu sañoon am ñu ciy jot waaw dugal la ba pare nag après ñu dàgg la nag moom waaw wax dëgg si yàlla dafa metti mhm, waaw président nag mag daal nañ jàppale daal ngir jëmmi borom bi seen jafe-jafe dëkk bi daal am nañu ay jafe-jafe loolu dëkk bi bëgg-bëgg moom ay placé ba ñu jàppale suñu njaboot ñu war a liggéey a égalité bi maanaam mënuñu ci mënuñu ci fayeeko daal depuis la 14 ba léegi mënuñu ci fayeeko 2014 waaw ba léegi sama carte yi fu ma demee daal ñu ne lu googu laal loolu nekk suñuy jafe ak ak yenn yi ci aju daal na lool dëkk bi ma wax yàlla moom ah yàlla xam am na ñoo xam ne daal moom bàyyi nañu xel am na ñoo xam ne waaw dëkk bi moom foo dem rek gis ko baax gis ko xam ne day xaw a doy waar waaye nag dañuy muñ rek ndax lu waaye muñ daal bu yàgg-yàgg dana mas a jeex waaye ba sañoon gaa baax a baax suñu wàllu bopp suñu wàllu damuwaay suñu wàllu dikkuwaay ak ci wàllu njaboot gi ndax njaboot gi buñu tekkee rek tekkeel ñu loolu mooy suñu suñu laal moom ma demee ba dix ans laal ci wàllu ngas dikkee ngas waaw waa ngas te li ma li ma mag ñi waxee li ma tuuf ma nelaw ak ngoon ma yeewe gisatu ma ñu ma jógal ma daal jóg ñu man maa dem lu xew maanaam xaw ma fu may jaar de ñu ne ah ma ne waaw xam nga fa jaar de ñu jàpp ma yóbbu ci biti ma toog ba tëri jën yi ma ma tëriwaat waaw ni la ma dikk sama baay nag ah, ba taay waaye sonn ci man lool waaye yàlla jot ko dogal dañuy jàng foog yàlla lu ko war ci àq doom def na ko ma ah, moom métti métti ñu ne ñu ne ko yóbbu imaamu Thiès ñu jëm ko yóbbu daal mu jàng métier ah, mu jëm ko jàngal daal lu mu yor lu mu yor boppam daal fa laa nekk fa laa nekk ba ba samp kër daal ci wàllu ci wàllu commerce daal ci yëngu léegi ci wàllu commerce daal waaw ay wàllu ay rajo wala ay basang wala yu mel noonu daal ci la ñuy yëngu daal waaw ci la ñuy yëngu yu mel noonu daal jamee fenn fan ku ci jàppale yu mel noonu tamit ah baax ci ñun it ñu mën cee jëriñu ak suñu mbokk ak suñu ak suñu ànd daal waaw bari na ci man lool ndax lépp lépp kenn mënu ko wax dañuy tàng a jafe-jafe moom bëri na ci loolu lool ndax lépp lépp boo ko waxee daal alhamdulilah daal doy na waar waaw waaw am na gars ñu xel moom ndax la woon am amoon wax dëgg yàlla am nañu ñu jàppale ba fay gi a yomb te loolu am amu ci waaw ñu koy dund it waaw. waaw waaw man naa leen gërëm naa leen ndax li ngeen def nii yaakaar nañu woon ko lool bëggoon ko lool. ba tey yàlla jotu ko daw dafa sant nañ leen gërëm nañ leen li ngeen bëgg yàlla leen ko yàlla defal kon nag euh, dégg ngeen ko noonu la demee moom it euh, muy ki nga xam ne rek mooy awa euh, ak ñi nga xam ne rek gis ngeen leen muy loo xam ne rek mooy li ma leen wax xeetu handicap yi bëri nañ ci seen association bi ku ci nekk ak ni ngay dundee sa bos waaye nag ku ci nekk ak ni ngay def rek ba génn ci muy loo xam ne lu am solo la ndax nag euh, li ñuy wax ne euh, yenn saa yi nga gis ñoo xam ne tey jii dañ naan am naa benn handicap rek damay tàllal loxo maanaam ñaan waaye ñoom dañoo def say def association boo xam ne ànd liggéey rek lañu gis lañu ñu xam gis ngeen photo yooyu muy euh, formation yi ñu leen defaral formation yenn ci formation yi nga xam ne ñu ci bëri kii dégg nga joor nee na da ngay am lu toll ay set attestation mm. yooyu yëpp ci formation yi nga koy jëlee mais entreprise yi foo fëgg duñ la daal di ubbi muy loo xam ne lu metti la euh, sànq ba tey maa ngi dégg euh, euh, faatu ci wàllu visuel yi mm. ak ci seen kàddu laa ko déggee maa ngi mm. dégg ñu naan carte égalité yi carte égalité carte boobu naka la demee ak nan ngeen koy jëfandikoo ak ndax yéen a ngi ci maanaam jëriñ waa carte bi daf ñu doon permettre bu ñu waree faju bu ñu demee duñu jënd ticket mooy carte égalité des chances bi mhm. loolu lañu biñ biñ koy génnee loolu la ñu waxoon mhm. en plus ak bourse familiale yi mais seetlu naa ñii reklaame ne duñu fayeeku wuñu bi seen carte génnee ba ba tey moo ëpp ñuy fayeeku mhm. parce que man sama jëkkër dañ koy woow ne ko man de carte bi ba mu génnee ba tey duma ci fayeeku te kii bi mu génnelee maa ko njëkk a génnele te moom day fayeeku waaw maanaam dafa dese am waaw day varié waaw. Mhm. dafa dese am organisation. Mhm. waaw. léegi loolu loolu naka la demee ndax nag maa ngi dégg suñu papa ji. Mhm. léegi léegi muy wax naan moom ba mu amee ba léegi benn yoon sax la. la jot a ko waaw am na ñoo xam ne bi ñuy jotee seen carte dañ leen a fay soixante quinze mille. mooy chaque trois mois vingt 25000 la xam nga bu ñu tegalee 9 mois mooy 75000 la am na ñoo xam ne noon lañ fayee ko am na ñoo xam ne dañuy jot seen bu ñu jotee seen carte benn 25000 lañ leen fay mais boobu ba tey ñu ngi fayee ko am na ñoo xam ne nag jotuñoo am loolu sax bu heure fayee ko jotee dañuy yóbbu seen carte ñu ne leen duggagul. waaw hmm. ñi ngi koy réclamé nag ñi koy réclamé. Hmm. bëri na torop hmm. ma buggoon nag président mu taxaw vérifier loolu. parce que mënoo am sa son nu ci déposé mu génn te doo ci bénéficié wu. Mhm. waaw ba léegi daal noonu. noonu boobu léegi waaw. sama yaay bi ci ginnaaw sax mu may wax ne moom loolu la am yaay bu nga ne yow euh, sa kaa noonu la demee la demee kay man man sax bi ma néeg bi ma dëkk. waaw moo doon seen. Mhm. léegi sama carte ma dugal ci saag bi. Mhm. pour bu ñu ma woowee yàlla dogal nag mu am ndox ma netul a kii. ma it ma kii ko ma bëggoon. su ma suñu suñu ko mënee ñu seetal ma numéro ba ba xam. Mm. ca fa mu ca fa mu ne. ca fa mu jógee ñu xoolal ma numéro ba ndax ka Binta Gueye. Binta Gueye foo dëkk. fii monument bi fii Touba <laughs> Thiaré. ndax mos nga cee saa yu ma demee. Uh-huh. ñu ne ma jàllul ma indiwaat. ma demee ñu ne ma jàllul ma indiwaat faf yàlla dogal ca loola. kon daal euh, dégg nga ko moom it noonu la ko dundee comme euh, suñu papa lii. Mhm. te di jaay boobu sant lii moom it noonu la ko dundee euh, mosu ci fayeeku lii mooy carte bi mu doon loo xam ne rek da leen doon permettre ñu am facilité ci yu bëri. ñu bëri fayeeku ñu mm-hmm. cas yi bëri nañu ñi nga xam ne rek mosuñu cee fayeeku waaye ñu jàppale leen ci eh, ndax nag payoor bi mm-hmm. doon na loo xam ne juróomi junni la waaw sama yaay li wax leer na Macky yokku na ko sax ci ah, année bu bees bi léegi am na léegi dem na cinq mille waaye trente cinq mille bi mm-hmm. eh, nañ fexe ñoom ñëpp ñu am ci accès ndax nag am na ci ñoo xam ne depuis 2014 am nañu carte égalité des chances mais mënuñu ko eh, ba tey fayeeku muy loo xam ne lu doy waar la ndax war na doon loo xam ne war na leen mën a aider ci leen loo xam ne tey euh, ki nga xam ne day xëy benn téeméer boo ko mm-hmm. joxee benn juróom-ñaari junni dina am foo xam ne ko profité mm-hmm. kon nag euh, ba tey dañuy wéyal kaawu maire bi tamit dama ciy sànni tuuti mm-hmm. moom nee na kartam dafa réer léegi na def social ci madame Diallo bu demee mu réclamer ko moom dina ko gindi waaw kon nag képp koo xam ne rek euh, sa carte dafa dafa réer Pikine waaw waaw képp ku kaa camré aussi na dem foofu ci madame Diallo ah ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yor ñu mm-hmm. daal di koy réclamer du ñàkk numéro bu ñu mën a génnee boo xam ne dinañ ko mën a génneel beneen carte mm-hmm. incha allah kon nag ba tey ñuy wéy rek mm-hmm. ku ko amagul nga dem après waaw dinañ la wax ni ngay déposé nga ñu wax la ni ngay déposé yow yaay yaay yaay yaay euh, ko awa yow man yaa ma gënal aw kon nag ñu wéyal ba tey rek euh, ñu wéyal ba tey euh, ci li nga xam ne rek euh, mooy sept voix du cœur ma leen di fàttali nag mbokk yi tey dama am mbégte lool ñëw fekk si leen muy association des handicapés de Thiaroye gar muy ñoo xam ne macha allah boo ñëwul seen biir toog ak ñoom mënoo xam li nga xam ne moom la ñuy dund waaye mënoo xam li ci seen xol mooy li ñuy wax ne euh, nit du handicapé xool mooy handicapé mhm. ndax nag euh, gis nañ ñoo xam ne dara dalu leen nii euh, de vue boo leen xoolee da ngay xam ne dara dalu leen mais amaana la ca seen xol la dara dal kon nag nañ ñaan yàlla yàlla def suñu xol yi ni yàlla def seen xol ñoom ñi nga xam ne amaana ñi ngi dund ak loo xam ne metti na mhm. Euh, déplacement bi métti na yëpp métti na maanaam nga bugg am liggéey amoo ngay sëy ñu xokkatal la nga doon jigéen handicapé nga euh, boo demee yenn yi doo ko mun a am ñu lay chantage waaye nag nga boole lépp ak muñ boole lépp ak li nga xam ne rek mooy dal ak am am dignité kon tey jii nag yaakaar naa loolu mooy li ëpp solo li ci xol bi ku leen seetaan di nga leen ñeewantal ndax nag ni nga xam ne rek noonu la ñuy dundee mu metti lool lool lool euh, ba tax na rek papa yaa ngi ma doon wax léegi ne am na loo bëgg a wax de. waaw vraiment am na loo ma bëgg a wax ginnaaw bi ma leen nuyoo. mooy wàllu respect bi. Mhm. waaw dama bëgg daal ñu xam ne ñun ay nit lañ yoo xam ne yu yu lañ. bët photo la rek ba ki dem dama dugg si benn oto damay koy jub rek mu ne ma non oto bi fees na doo yëg ma ne ko pourquoi te yow yaa ngi woote kon da ngay fëgg oto bi nga dem soit dinaa yéeg soo ma téyee dina la duma bi ma koy wax loolu bon yàlla laa àndal tellement ñëpp ànd ànd nañu ma ne ko silmaxa bi bu yéegee bu la fayul yóbbu ko ci yoon mu fay la mbaa ñëpp wax ko ne ko yaa tooñ ndax mu man la fay mais quand tant que mu bëgg a nga ne ko doo yéeg njaacaar bi ñëw yéeg loolu euh, bët taxawul loxo mooy jàppandu tànk mooy taxaw te am nañu ko am nañu xel loolu laa xam dinaa ko sànni li ñu bëgg a kaas bari na bari na daf ci xajul mais bari na te lépp nag ci am xel rek lañ ko teg dañ ñu yar xamal ñu li ñu doon def ñu ay nit waa lépp lu ñu war a daj rek dañ nañ ko bu dee ci lu metti la bu dee ci lu neex la waa kon daal nañu bàyyi xel gën ñu respecté loolu moo doon kàddu gi merci. su ma ñëwee ci yi nga xam ne rek mooy tali pont yi. yooyu yëpp tamit problème la encore pour mm. handicapés yi duñ leen ci sóoraale buñ koy tabax déedéet travaux yi bëri na léegi mm-hmm. naka ngeen di dundee loolu xanaa jafe-jafe rek mm-hmm. jafe-jafe rek ku ci mel ni man moom su ma xamee ne fii mënuma fee jaar vaut mieux ma fomm man moo ma gënal nga toog waaw parce que mm. sànq joor mi ngi ma doon nettali dafa ñëw ba ci croisement bi mu jéggi kii euh, pied bi mais dafa daanu ba léegi dafa jàpp loxoom bi. Hmm, mooy kii non joor jaw ah joor mooy ki am fracture bi waaw ba léegi dafa jàpp loxoom bi. Hmm, ma joor moo dem hôpital am fracture. ñu laaj ko ñu laaj ko 700000. mu ne duñ ko laal 700000 caution avant ñu koy laal. waaw Cheikh nekk ANPEJ suñu mhm. président. Mhm. moom fédération la nekk moo yor ñii moom moo def intervention bi ñu doog ko mën a. accepté waaw doy metti na trop Fatou lan ak lan euh, xam naa jafe-jafe yi bëri na bëri waay ba nga xam ne. Mhm. amaana dina am yoo xam ne xel dina fattu duma la ko laaj. Mhm. lan ak lan ngeen di dund ak lan ngeen di lancer comme appel pour nag euh, ñu gën leen a bàyyee xel. Mhm. ndax nag euh, liñ naan mbaam gàtt na trop waaye ci jur gi la bokk te nag moom da ngeen ci nekk ba ci biir a bi. te am na ci loo xam ne yaakaar naa yéen a ko gën a yeeyoo ka ñu. la ñu bàyyi ñu xel daal sóoraale ñu. waaw nañ ñu sóoraale te ñoo ngi lancé appel ñu dimbali surtout ci appareil yi ak fauteuil lan yi ak béke yi ak ñi nga xam ne seeni doom dañoo amee neer te amuñu moyen pour yóbbu massage amuñu moyen pour faj torop torop dafa metti mhm. dafa metti mhm. séance chaque deux jours séance dafa metti mhm. loolu moom dama ciy insister bu baax ku ci mel ni Pape Omar chéri Marème Faye. waaw Pape Omar ak doomu Germaine. doomu Germaine am na keneen ku toog fii sama ginnaaw tamit moom it mm-hmm. doomam noonu la. Mm-hmm. ba léegi xale bi mënul dara te magum jëm la boo ko xoolee da xale bu ndaw la liir la. Mm-hmm. neer moo ko jàpp. ñu dimbali ñu ci daal. ñu dimbali ñu ci waaw nañ ñu jàppale moom nee na Marème Faye la nopp. kenn mënu ci daal nee bàyyi ko ba Macky Sall jàpp ko. waaw man moom moom awma ci moom pexe <laughs> mi ngi rafet ba macha allah. billaay macha allah billaay billaay ah, na waa mm-hmm. kon nag dama lay bàyyi rek. Mm-hmm. wax ñu lan ngay tëjee. waaw li may tëjee mooy li may ñu jàppale ñu ñu am local. Mm-hmm. local ba waaw local fu ñuy daje. billaay yow Sodia ñu am local am moyen tamit. pour ay wootee ñu daje. Mhm. am chaise yu ñuy utiliser ci biir local bi. Mhm. waaw mhm. ñu am financement xam ne fi mu ne nii. Euh, muy seen chef de quartier. waaw leen di jàppale waaw moom moom bu ñu soxlaa moom def ñaan ñëw leen kër gaa ngi nii. mais chaise yi dañuy dañ koy louer ak suñu propre moyen. sama borom kër da koy louer ak propre moyen. woote téléphone bi tamit la même chose man daal li may ñaan am nañ métier nañ ñu financé. métier yi yan ak yan ak yan. def nañ formation céréales locales locale def nañ entrepreneuriat def nañ leadership mhm. def nañ fruits et légumes. Mhm. waaw bëri na daal li ñu def. Mhm. waaw loolu lépp am na fu ñu leen mën a intégré. waaw foo xam ne bu ñu leen fa dugalee defal leen ay contrat doo leen amee tàllal waaw duñ ko soxla même bu ñu financé sax mën nañoo demal suñu bopp. bu ñu financé ñu am local. mën nañoo demal suñu bopp. mais ba pare ba en plus premièrement bi ñu may ñu app ñu appareillé ñu ba nga xam ne dootuñu mën a dépendre ci oto yeeg tata yeeg bis dañuy mën a demal suñu bopp bu ñu amee appareil mën nañoo demal suñu bopp mm-hmm. kii bu fauteuilam normalé moom mooy puusal boppam demal boppam dafa metti dugg bi fii rek dafa mm-hmm. metti loxoom day metti waaw mm-hmm. nañu dimbali daal bon volonté yi ñi ngi fi président mm, Marème Faye Sall bàyyiwuñu kenn daal ku ñu mën a jàppale rek. Mhm. ñu jàppale ñu waaw. Mhm. waaw loolu la ñu soxla. Mhm, loolu la soxla. muy euh, li nga xam ne rek euh, mooy seeni mbébét. ma bàyyi la rek nga lancé appel euh, ci kàddu ki nga xam ne rek mooy président. kilifa gi <laughs> Fatou yaa ngi ree de. ban président sànq yaa ngi bëgg jooy nag léegi moom daa mel ni maa ngi wax monsieur Faye rek yaa ngi commencé. waaw monsieur Faye moom dafa nekk koo xam ne ku baax. muy seen président. waa mooy suñu président. Faye ku ku dynamique. waaw moom bu amoon moom du ñu jooy dara. waaw boo ma weddee nga laaj ñi ci ginnaaw bu ah, amoon bu amoon du ñu jooy dara <laughs> bu ñu amoon moom du ñu jooy dara <laughs> uh-huh. mais xam nga rek nekk per de famille di daw ngir sa njaboot xam nga dafa metti daal te jëkk bi dafa dëkk bi day gën a metti uh-huh. kanam la jëm uh-huh. waaw ku ñu mënoon jàppale daal ñun jigéen ñi jàppale ko moom lu mu dimbalee association mooy local beeg yi ma wax yëpp ñu jàppale ñu rek waaw uh, Fatou laata ngay tëj dama lay laaj lan nga dundu ci wàllu association ci wàllu sa dund euh, ci wàllu maanaam problème yi nga xam ne di nga koy jot en tant que euh, euh, membre waaye en tant que jabaru présidente association des handicapés mhm. nga xam ne ku seet si sa borom kër amaana na la seet mhm. lan nga dund loo ñu mën a fàttali loo xam ne amaana tooyoon na soxol mhm. ci loo xam ne rek dund nga ko ci wàllu association waa am na benn benn maire ñëw fa parce que ñoom dañuy def bu ñu dañ leen di dañuy am doomu handicapé ñu boole leen nag ñu ne ko demal ci diw moom dina la teg ci yoon dina xam fan ngay jaar bu ñu ñëwee dama leen di accueillir xam ne ci man la ñu bokk te gis nga nit boo ko dalalul dégluwoo ko doo xam li ko indi waaw en plus tamit li ma li gën a tooy ci man mooy jour bi ma sama yaay ne kee moo la def moo la teg lii la dal parce que man bi ma sama handicap waaw dañ ma pikiir pikiir bi dafa rate fii lañ ma pikiiree Dominique Oh. damaa sibbiru woon rek boobu am naa presque quinze ans xaw ma quatorze ans. Hmm. mu sànni rek après ma dawal sama lox tànk mu raté. benn jour nag ma taxaw ci aada bi maak sama yaay mu ne ma gis nga kii ma ne ko waaw mu ne ma la teg sa tànk bi keroog sama xol dafa tooy mais hmm. su ma xalaatee ne ndogal bu yàlla jaarale foofu la hmm. après dootuma kii daal waaw loolu moom xaw na ma touché tuuti mais naqarlu ma ko yàlla moo ne woon noonu lay jaare waaw Mm-hmm. yàlla moo ne woon noonu lay jaare mm-hmm. yow sa handicap foofu la jóge waaw léegi bi mu defee noonu dañ la daan yóbbu di la faj ak yooyu. bi mu ma bi mu ma pikiiree mu rati dama doon raam. Mm-hmm. nangu ma woon jog dox dama doon raam mais sam maam bi jur sam sama yaay ak sama yaay ak samay ndijaay sama famille ñoom gàcce ngaalaama. dañoo am yërmande ci man. su ma amee lu ma naqari sax ñoom ñëpp dañuy jóg taxaw. sama maam dana ma daan diw karité gas bu naaj bi tàngee mu gas ba mu xóot. mu suul ma foofu léegi may def su ma su defee noonu su ma jugee fekk sidit gi moo lem woon su ma jugee taxaw jàpp ci tànk bi damay xaw a dem mu ne ñu ne ma déedéet da ngay dox bul jàpp tànk man leen foog ma jàpp tànk bi moo waral su may dox di jàpp sama tànk mm-hmm. mais buñ ma seetaanoon xam nga ak yërmande bi nekkoon ci ñoom kon ba nii du ma dox mm-hmm. mais dañ cee taxaw naka nga koy dundee ak say doom ak sa borom macha allah man la ma la waxoon ci commencement bi man ñëw ma benn jigéen bu yor ñaari tànk dem parce que maa ngi sama biir kër maa ngi sëy yor samay doom. lépp maa waaw lépp maa koy defal sama bopp. maay fóotal sama bopp bu samay doom bu ñu waree jàngi dañuy root tegal ma ma toog fi ma toog togg su ma paree ñu yóbbul ma ma yàq. Mm-hmm. mais ñëw ma benn jigéen daal. Mm-hmm. lépp mën naa ko. Mm-hmm. di sant sama yaay nag fa mu nekk gënal ko fi mu jógee yàlla yërëm ko yaatal bàmmeelam Mhm. parce que bu ma jàngalul woon liggéeyu jigéen kon du ma fi toog du ma am du ma banaan damay am ay doom. Mhm. kon sant yàlla bu baax a baax. Mhm. Euh, Fatou ku leen bëgg a jàppale euh, association euh, bi ak ki nga xam ne mu ngi seetaan amul ñàkkul amul lum am na lum leen bëgg a dimbalee. fan lay jaar fan lay jaar ak ban numéro lay woote. waa mën na woo woote woote ci 77 942 19 vingt numéro boobu am na Wave am na Orange Money. Mm-hmm. kuñ ci ku ñu ma bëgg a jàppale rek mën na ko jaarale ci numéro boobu. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. loolu mooy ma looy tàggoo. di sant waa 7TV seen déplacement di leen gërëm surtout yow Sonia ci sa disponibilité. ku baax ka yow suñu oyof nga yow ku baax nga ku oyof nga waaw ku baax oyof nga boo gisee ma wax la loolu mm-hmm. c'est que affaire u média moo nekk lu sensible mm-hmm. waaw bu la neexoon nga ñëwee beneen allure mm-hmm. bu boobaa dañuy dañ lay accepter rek malgré mais defoo ko kon yal na la yàlla defal jàmm fa nga bëgg a yegg yal na la fa yàlla yóbbu sa télé bi egg ca kaw ca kanam yooyu nga dund ba yor sa télé bopp di def social bii ngay def waa ci darajay sang bu tedd bi sallallahu alayhi yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko def amin waay amin ah. di ko jaajëfal bu baax a baax euh, moom euh, faatu Fall mm. euh, madame Faye di nag ñëw di wax ci kàddu femme handicapée yi nekk Thiaroye Gare waaye di wax ci kàddu borom këram muy président des handicapés de Thiaroye gar muy monsieur Faye Saliou Faye mm-hmm. ba tax na rek mbokk yi tey lii laa leen indiloon ci 7 voix du doy na waar euh, gis ngeen bu ne ndax nag euh, ku ci nekk ak ni nga koy dundee muy sa handicap waaye ku ci nekk ak ni nga xam ne rek noonu lala la bi euh, handicap bi dalee nii mu dab leen ñii ñu judduwaale ko kon nag euh, yow mi nga xam ne yaay seetaan te dara dalu la euh, suñu borom euh, may la li nga xam ne rek yaa ngi jëfandikoo bay mën a def ci sa poos di denc nga la amul loo loo du la yàqal dara nga daal di ciy génnee même somme bu ndaw daal di koy envoyé ci numéro bi jàppale leen ko waaye tamit nag euh, ñi nga xam ne mën nañ leen jàppale ci ay appareil ay crème solaire ak yooyu lu ci mel ni euh, Fanta Fanta gis nañu kaam gis nañu euh, tant d'autres ñoo xam ne rek mhm. ñoom ñëpp bu ci nekk rek metti na fauteuil yeeg nañ ñu ci jàppale kon nag ñu def leen comme suñu bopp te xam ne ñun ñoo leen mën a jàppale mhm. nguur gi tamit lim leen mën a jàppale lépp na ko def mhm. parce que nag carte yi doy na waar ba léegi nii am na ñoo xam ne mënuñu ci fayeeku maanaam daal doléance bëri na naa leen bu baax a baax euh, tey nag di leen wax ne nag dig daje laa leen di jox mardi incha allah ci beneen numéro laataa loolu liggéey bi ñi ci ginnaaw ñoo ci ëpp solo ku ci mel ni Souleymane si ci wàllu cadrage bi Papa Diop ak euh, Mouhamed euh, ñoom ñëpp nekk ci wàllu cadrage bi Lamine Mbengue ci montage bi ak ñi ci ginnaawam du ñu fàtte waa production ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal fi amaani laa jàngeen jëf ba mardi incha allah sur la 7 TV ci seen émission 7 voix du cœur

njëlbeen mbëggeel daal di lalu. mbëggeel gu amul ab te bëri doole lool ci wàllum télévision. googu mbëggeel.